xam nga dafa dem Touba. ak kan nii ak ki nga xam moo di maître Madické Niang. ayca euh, ñu ngi lay nuyu Sall Ngaal lam te Alwaar maa ngi lay fay di la nuyu. di nuyu Sénégalais yi. Mhm. di nuyu Serigne Mountakha. di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu njabootu Serigne Touba gi yëpp. Mhm. encore une fois mbégte ak bànneex di teew si seen plateau di nuyu monsieur Oumar. Mhm. di ko ñaanal jàmm di nuyu aussi monsieur Sonyibou ak ki nga xam ni moom la ñuy wax soxna Betty di rafetlu bu baax teewaay bu nga xam ni teew naa ko ci plateau bi jàkkaarloog la la grande journaliste. merci vraiment loolu c'est quelque chose de très merci, merci beaucoup monsieur le président de la République du Sénégal muy koo xam ni. nan gisee plateau bi. plateau loolu foofu laa bëggoon a ñëw sax ci moom ñu ngi koy doog a dalal ci li nga xam ne rek moo di suñu plateau yu bees yi te xam na ni yow uh, lu bees rek nga bëgg donc ñu ngi lay wax loo ci xam. Mm-hmm. jërëjëf. inauguré rek lay inauguré macha uh-huh. allah. Mm-hmm. dama leen wax ni rafetlu naa ko. macha allah di si am mbégte ak kontaante. Mm-hmm. parce que c'est quelque chose de très important. li mbégte laa si am. di si am kontaan bu baax a baax. Euh, jërëjëf président ci émergence Sénégal émergence. waaw mu ngi nii. merci. émergé. Euh, uh-huh. macha allah. dërëm de xam nañ ko waaye nag wax dëgg yàlla dañ ko dañ koo wax ni ko egsi rek ci ci fii dëgg yàlla. Mm. Euh, monsieur le président. li nga dégge Touba wax dëgg yàlla Sall ngaari bari na de robinet café. Eh, kan ma ko déggee. robinet ay ay café foo xam ne dañ koy joxe rek. wax loolu yow. ah non loolu mosuma ko wax. waxoo ko loo wax. robinet café loolu fan laa ko <laughs> laajal il faut demander les journalistes. Mhm. robinet café man. waaw da nga leen digg ci. non mosuma ko je n'ai moom la wax de. non non il faut ah donc bu fekkee ne loolu. yow loolu xibaar boobu man aw ma ko. démb Touba kañ la kon ci inauguration. man ma taxaw wax ni. <laughs> maa ngi wax. dëgg ko man la lu doytuwaat. merci bu fekkee ne nit kiy ñëw li nga xamante ni bi le problème en li ma war a wax loolu la wax. li nga leen te waxuma ko woon. <laughs> président fan la waxee loolu su ka citation war na la yow. man amuma ci ah problème de léegi li nga wax dafa garaaw euh, xam nga parce que tuumaal loolu président de la république xam nga ci studio yi ma daan def xam nga am na ay studio yoo xam ne soo buggee taxaw bii pas damaa bëgg ñu joxaat ma citation dama ne dama bëgg dama dama fi mu toll nii li nga wax ni c'est quelque chose de très important ñi ngi maa ngi demander monsieur le procureur mu saisir ce ce ce ce ce femme là parce que cette femme elle est man nan laa mën a taxawee si kanamu sëriñ mu taxaa di wax naan ay robinet kafe robinet café loolu caaxaan la booy laaj nga laaj laaj bu jeeru maanaam su ma yóbboo sax ci yoon ma xam ne ma xam ne day ak ngaa yóbbu nit ñi ci li ngay def nii li ngay def nii ay caaxaan la mais mais ci ay caaxaan la réaliser ma tey maa réaliser sama bopp. léegi yow lan nga dig waa Touba. voilà très bien sa c'est mais bu doy waar da nga bu doy waar da ngay sos. teel sa teel sa wax ay robinet café jël te te loolu di ko def taaliba yaa ngi lay dégg. taalibe yaa ngi lay dégg. yow nag xam ne taalibe yaa ngi lay dégg. ñëpp ñu ngi lay dégg. parce que da nga wax lu garaaw. robinet café robinet café. génnal foofu génnal foofu. yow fu <laughs> ma suuxalee su nga di dellu di wax ni encore une fois. Mm. Eh, li université bi nga xam ne moom lañ tuddee Cheikh Amadou Bamba Khadim nekk loo mm. xam ne bi lu am solo la si Touba parce que Touba ku ko xam-xam ni dëkku xam-xam la. Mm-hmm. tey ndëkkum jàng la. Mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ne vision. de mun Mountakha. Mm-hmm. ñun defuñu rek lu dul ñu participer si. Mm-hmm. def si li nga xam ne moom lañ si war a def. Mm-hmm. macha allah macha allah. lu jëm si wàllu tëli yi nga xam ni ñooy am si iniversité bi gouvernement bi dina ko jël en charge. ñu taxaw si parce que sëriñ bi bi ma ko waxee ne ko dañ ko bëgg a tabax. daf ne déedéet mënuloo ko mu bul ko bàyyil taalibe yi ku si ne am lu mu si def. si laa yëkkati un milliard. sëriñ ba Cheikh Bassir wax na ko mhm. loolu nekk loo xam ni lu am solo la mhm. waaye nag li ma diggee mooy ay tëli lii mu wax ay waxam la maa ngi xamal Baye Fall yi na leen nag nañu déglu ne waxu ndaw si la moom moo ko wax waaw bu liggéey dina am ngeen fi càdd bu dégg teg ma xam na est-ce que du ay si gil nga xool Touba kenn mën la faa génne. waaw ah, booy si keneen. que dalal keneen waaw nee sa nee ko jeex na pare ngeen. <laughs>